monsieur Aydara Alioune Aydara man maay Alioune Aydara coordonnateur Pikine jóg euh, jëf xeex corona. bon tey moom vraiment. bon tey moom vraiment je vais je vais m'exprimer en wolof euh, donc je vais m'exprimer en wolof le tubaab bi s'exprimer en français donc euh, li ma ci mën a indi mooy tey bu ngeen gisee lii xam ne wax dëgg yàlla ñëpp jog pikin Pikine yëpp a jóg. Pikine jóg jëf nag benn mouvement la bu am doole ba mu nga ba Kër Massar donc bi ñu yëgee yëf yi lañ ne ñun suñu biir. kuy bay ci sa weewu tànk nañu commencé cotiser ci suñu biir ñun ku nekk li nga am nga joxe ko au delà de 1000 francs ñiy joxe 25000 ñiy joxe 15000 ba yàlla suñu borom dénk ñu loolu ñu ne nag comme yàlla suñu borom dafa am dëkk bi ñu ngi ko dénk gox bu nekk dafa am ku mu ko dénk nañ leen sol suñu daal seeti ñooñu waxtaan ak ñoom pour jàppale leen ci liggéey bi. parce que nag lii bu ñu ko dee def jàppale ñi fi Macky Sall teg la quoi qu'on puisse mais jàppale suñu bopp la jàppale askanu Sénégal la ndax wax yàlla lii jaamu yàlla la ñun bu ñu jógee. pour xeex lii jaamu yàlla la bi ñu dajalee loolu dem jënd li ñuy jënd matériel bi nga xam ne xalaat nañu ne moom la ñu soxla parce que aussi dañu waxtaan ak les médecins ba ñu xamal ñu ñu lii la ñu soxla lii la askan bi soxla bi ñu ko jëndee aussi waa Pikine jóg dafib ànd bi ñu ko defee à chaque fois seeti nañu le maire Pape Gorgui Ndong ñu ngi koy nuyu de passage seeti nañu Issakha Diop seeti jara seeti euh, Mbeng bu bu Kër Massar ak yeneen autorité Cheikh Tidiane Thiam kenn fàttewu ko Euh, Thierno Ndomba seeti Modou Cissé ñooñu ñëpp voilà ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla def nañ ci seen doole de passage ñu ngi leen di remercier vraiment ci li ñu def parce que aussi euh, merci baat bu gàtt la waaye ku deful dara duñu la ko wax wax dëgg yàlla ñu ma lim ñi gis nañ seen taxawaay bu ñu xoolee daal à peu près am na ay quatre cent et yoo xamante ne dégagé nañ ko def ko ci matériel def ko ci matériel gis nga t-shirt yi ñu def parce que aussi comme ñun aussi dañu ñëwee dafa am loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy tere mënuñu ci loo xamante ne nii dañ koy dépenser le parce que aussi il faut ñu am loo xam ne dañ koy réserver parce que nag Pikine jóg jëf yamul fii gis nga bu ñu jógee fii dinañ dem euh, Alassane Djigo dinañ dem marché syndicat dinañu dem Kër Massar dina dañ fu ne donc loolu yëpp danañ ci xalaat lu nekk ñu ànd ceeg ñoom ñu ci seen bëgg-bëgg ñu indil leen ko. ñu ngi koy xaati lépp parce que lépp lu soxal Pikine rek Pikine jóg jëf taxaw na ci ndax Pikine jóg jëf gurbul boo xam ne. politiciens yaa ngi ci ñëpp a ngi ci c'est-à-dire dafa naa wax ne groupe la boo xam ne c'est apolitique groupe boobu li ko tax a jóg rek mooy ñoŋal Pikine. dañuy def dañuy continuer li ñuy liggéey continuer mooy sensibilisation bi en plus ñuy yëgal gars yi ne du ñuy yem ci lii rek parce que aussi set ku nekk ko soxla danañ sensibiliser ñi xamal leen ne wax dëgg yàlla fu nit nekk rek war naa faggu ci boppam ndax bu dul corona am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi xew te ñu ngi ñëw mooy li Pikine jóg def de mooy ce sera continuel lii dey continuer ci fànn bu ne nag fu ñu ci woowee aussi ñu ngi ci ñu ngi ci maladi ñu ngi ci ñi feebar Pikine jóg jëf a ngi fépp parce que aussi ñi feebar ak ñi malade ak ñi soxla ndimbal Pikine jóg jëf ñu ngi ci def seen doole macha allah di gërëm nag ñii ma àndal man la ñu def comme coordonnateur waaye macha allah ay liggéeykat a fi nekk ku lim bàyyi te bëgguma bàyyi di gërëm nag yuusu mi nga xamante ne moom aussi wax yàlla def na ci dooleem def ci léppam macha allah yal yàlla fay yiw